asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu mbokk yi ci Uras-Al Irada yëpp ñu ngi di nuyu ñoo xaw a sonnaale nag lool ndax dañoo demoon ci marché boobu ñuy wax sànjara xam nga am réew moom bu jàmm amul foofu nit ñi am xel la ñuy demee kenn ku ne ci sam xel ngay demee nit ñi dañuy daw a gaaw dem jënd ay xar ñëw di ko denc ndax tamit ci des na tuuti ay fan fukki fan ak nangam waaye ah kenn xamul jàmm dina am ci réew mi kenn xamul jàmm du am ci réew mi ah bu fekkente ni jàmm am na ci réew mi ah, alhamdulilah bu jàmm amutee ci réew mi nag xam nga ne ku nar a jógee Niger ñëw ba Sénégal fekk waa Sénégal ñuy siif seen biti bitik ak alal yow mi di doxan du ma ta wax su boobaa mën naa am duñ fi ñëw loolu moo tax ñi góorgóorlu ci taxawee li ñu war a taxawee balaa dem ba egg foo xam ne taxaw nga day ñàkk jàpp nii loolu rek a taxoon ñu yendu sànjara tey ci wirum xar yeeg yooyu lañ doon seet yi bu loolu jàllee nag li nga xam ne moom lañ ci teg mooy Afghanistan giñ leen doon wax euh, ci suba def nañ ci ay gëstu pour xam lan moo waral Afghanistan ak Iran boo nee nii rek jàppale maa ngi ñëw maa ngi ñëw bis bu nekk ñu ngi ci songante euh, waaye la ko waral mooy Afghanistan ba fi tubaab bi nekkee ba di fi jóge mooy américain yi dañ fee jël armée ba mu fees askan yi bokkuñu te askan bu nekk am nga kilifa askan yooyu ku nekk sewaa waa dëkk sa kër ñi nga ilif dañoo roñ ci armée américain yooyu ba ba doyal ndax xam nga taliban bi américain yi dem soo ko ne taxawaguñu ba moom réew mi wet gu nekk américain yi dañoo dem ba noppi ñu doon ñëw di jéem a annoncé ah gox bu nekk nag ak xeet wa fa nekkoon ak armée yi ñu fa bàyyi woon gars yi jël ko armé woo ko seen bopp te américain américain yi defuñu ko ngir dara lu may bëgg buñ fa jógee xeex nekk fa te xam nga dañoo bari ay askan buun buun yi am na fa xawma ñu euh, ko waxee ci bastun yi am nañ fa aspek yi am nañ fa tajik yi am nañ fa euh, euh, turkumaan yi am nañ fa bari nañ fa daal di gën a gàtt perse yi sax am nañ fa ci biir Afghanistan bari na ay askan ay làkk yoo xam ne ña fa làkk yooyu ñu fa nekk nag askan wi ci nekk daa am kilifa bi soldats yi américains yi dem it gox bu nekk camp bañ fa bàyyoon noonu ñu fa bàyyee dem ah mel ni tey Kolda boo fa wàccee ab camp pël Fuuta yaay jël ak Joola yaay jël armée ya waaw eh, gox yi ah, Sénégal foo wàcc benn camp fa dëkk fii te fa mooy ñoo jël armée ya te loolee def ko pour ñoom bu daan ne xeex ñoom seen biir bopp yàlla nag sàmmagul na leen ba léegi loolu mucc nañ kii li ci topp itam mooy dañoo amagul état nations unies reconnaître gu leen amuñu fa représentant amuñu fenn représentant ci àddina bi na américain yi dañ leen a bàyyi ba noppi ne buñ mënut a doxal nag laïcité lu mooy di doxal islam moom dañ leen di bàyyi kenn du fa am àndam ambassadeur ñoom duñu am ban ci nations unies duñu fa am baat bokkuñu ci dara daal ñoo ko wàllu axira daal la ñuy dañuy dund noonu lañ leen def bàyyi leen foofa ñàkk a matal kaaraange gi nag ci biir réew mi moo war a léeg-léeg yu demee nii di am ndax xeex boobu boo gisee taliban yi xaw a fàpp waa Iran ci cong mi ñu leen songoon maanaam dafa am ab groupe boo xam ne ay trafiquants lañ ñoo diggoon ci almande ci biir Afghanistan boo ko dugg Iran gars yi tere leen ñuy tiirante bu ko taliban yi déggee nag ci seen camp ba ñu nekk léegi tiirante ba ca frontière ba ñu dikk laa yi ñu dañoo ñëw rek ñoom it daal di sox ndax yaakaar ne Iran daf leen a song loolu moo tax riposte ga Iran war na riposte defu ko bi mbir mi jàllee nag la ko Iran ñuy leeral ba mu ne nañ xamal ne leen dafa am ay nit ñoo xam ne ay trafic lañu ñu jóge foofu doon dugg ci fii ñu di leen tere gaay fetal gaay fetal ci seen biir ñooñu fayu ku nekk naqati ci roq di yéegu ko ñëw daal di wàllu si fetal ca côté loolu moo indi jiyoo amoon seen diggante léegi nag euh, xam nga euh, Afghanistan ginnaaw dañ ko embargo amul buntu ci benn réew amul te kenn relation te am na yenti dexi ndox yu nekk biir Afghanistan gii ma nga jëm fa ñuy wax euh, Turkmanistan genn ga ma nga jëm euh, Sijistan genn ga ma nga jëm Azerbaïdjan genn ga ma nga jëm euh, nakalaat yi côté côté Afghan maanaam genn gi mi ngi jëm Pakistan am am gu wàcce ci kaw montagne yi Ilmande yi ah ba mu jeexalee réewum Afghanistan mu dugg Iran ah xam nga nag genn mennam réew bu fekkente ni yenti dex ba juróomi dex yu am ca continent ba réew ma nekk te bëti ndox ya nekk ca biir réew mooma ah bu fekkente ni danga nga koo ambar góone kenn du séq ak moom ci lenn du am ambassade ci benn réew benn réew du am ambassade ci réewam te lu bëgg a mat juróom benn réew wër nañ ko te réew mu ci nekk sa ah, dex ga ngay jëfandikoo ndox ma ba ngay jóge ci Afghanistan gars yi ñoom it dagg doxee tàmbalee liggéey seen ab liggéey ne ñoom ginnaaw dañu dañoo embargo kenn du ñu jaay dara kenn du ñu jënd fenn dara kenn du jënd si ñun dara kon réew yi ñu wër eh, nañu téye seen bopp lu ñu téye suñu bopp waaye nag suñuy dex yi moom dañ leen di defal ay barrage ah ñu beral suñu bopp suñu suñu suñu dund ndegam yaakaaruñ ko ci feneen fuñ ko mën a amee loole moo tax ñaareel ba itam amuñu ay entreprise yu mag yenn yi yu liggéeykat yi amu fa ñetteel ba itam ah, lu mel ni pétrole beeg yooyu taxagul mu bari fa ndax buñ ko amee gasaguñ ko Iran nag dafa am ba desal dañu embargo ko ah boo gisee gars yi ñoom it di xaw a def noonu an naft muqaabil al miya lañ bëgg a def an naft mu xaabileel miyaa ñoom dañoo bëgg ne ah, bu ngeen joxul pétrole ah duñ leen jox ndox ndax dañoo dañoo dañoo nekk ci ambargo yooyu daal ci lañ nekk di ba waaye nag bu dul Chine daal du Iran googu daanaka réew yi diggante ak Afghanistan bariwut mbaa bu bari it man xaw ma ci xaw ma mel ne réew yi diggante Afghanistan loolu mooy li ma bëggoon a leeral rek mooy cong moomu looloo ko indi woon ah, waa garde garde frontière yi Iran yi ñoo doon jëflante ak ay nit ñu dëkk Taliban nit ñu dëkk Afghanistan dëkk côté Helmand Helmand te nekk ay ay ay trafiquants te ñoom dañuy trafiquants yi dañuy seen armée dañuy armé wu comme soldat fetalante boobee nag la gaa yi dégg ñoom ñoom ñi waa kër gouvernement bu Taliban yi ñu dikk rek daal diwul li ñoom tamit topp ci wet gën féetee loolu indi woon jiw bi waaye nag iranien yi moom nee nañ bëgg nañu daal Afghanistan am ak ñun jàmm ñu am ak moom jàmm ñu ji leen jàppale ngir ñu mën a taxaw seen état mën a dox ndax ñaar fukki at ak nangam ku ko xeex war ngaa sonn ci xeex te bëgguñu Afghanistan continuer ci xeex bi di xeex di dem loolu daal ak yu demee noonu moom lañ leeral incha allah suba maanaam ñu ñëw ci leçon yi.